d'abord damay eh, leen di gërëm sant leen ah parce que gis naa seen taxawaay taxawaay bi ngeen wane depuis ñu jógee Sénégal ba yegg si fii tamit pas-pas boobu dafa am mandarga boo xam ne daf ko feeñal ci suñu ci li nga xam ne tey di président François ko wote na ko mais ci li nga xam ne moom mooy projet parce que boo seetee dans le pastif dafa am benn mot bu nekk bu am solo mooy fraternité fii ci euh, Pastef Portugal mun naa wax man mun naa ko seede wane nañ ko moom jeex taxaw nañ ko moom jeex parce que depuis démb naa wax barki démb ñoom Sadio ak ñun ñëpp ñoom Badji yéen ngi toog di xaar di ma orienté ba tey jii lii mun a am ma am escale fii Lisbonne ñu fexe gisee loolu moom euh, ñu bokk bokk gis-gis ko bëgg-bëgg rek ñoo ko mën suñu bokk gis-gis ak suñu bokk bëgg-bëgg dafa jéggi ak politique kese tey jii bokku ndey bokk bàyyi la tey la waxoon parce que loolu bu amul suñu réew mi duñ ko mën a tabax donc loolu d' abord dama ci doon profité euh, au moo gërëm sant waa waa Pastef Portugal ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci témoignage bu am solo boobu euh, laaj bu ñu la bëgg laaj mooy parce que ñun dañu nekk bitim réew am ñu bëri ñuy dégg ci ci réew ma 프레지던스만 속고 속고 나타나야 돼. 옛날 그런 거 아니고. 런던이 뭐 왔지 뭐 맞게. 뭐 이게 difficile de le dire parce que gis ngeen dañu salfañé état de droit dañu salfañé lepp nga xamné ay droit am je je je peux le dire comme ça parce que nit boko tié amna droit de visite n'est-ce pas pour wone né depuis le début depuis 2 mars 2021 ba tay ji ñu tok wax ak mooy Ousmane président Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne mooy la seul citoyen boo xam ne dañ koy jaay doole au Sénégal dañuy jël droit jël lépp li nga xam ne loi la woon ñu sànni ko fële ñu def lu leen neex tey moom moo indi mu nekk tey au niveau de l'hôpital principal avion spécial mun nañu wax réanimation te ñun ñi nga xam ne ñu ñooy ay jegeñaale ñi nga xam ne ñu ñoo àndoon ak moom démb barki démb ko teg ba ñu ko mën a teg ba tey jii docteur am la ak famille ak les apôtres donc ñooñu li ngeen di dégg Pape Alé Niang di ko wax li ngeen di dégg des fois euh, l' avocat les avocats di ko wax sénégalais yi nga xam ne tey ñu ngi biir Sénégal bokk président Sonko liggéey bi loolu lañ ci mënuñu la wax tey jii man mënu ma taw ci wax parce bu tegu ma sama bët gisuma ko boobu ba tey mënu ma la wax nii la nas lu dul luñ ma waxul te médecin am yàlla kooku mënut a wax parce moom moo koy seet li ñuy ñaan rek ñaanal ko yàlla yàlla te ñu li nga xamante ni moo neex Sénégal bi tey dem ci Sénégal maa ngi nii je suis le coordonnateur départemental de Guinguinéo xale yi mais mag ñi ñoo am naqaru mag ñi ñoo am naqaru xool ci lii nga xam ne dañ ko teg d'abord donc mais également citoyen sénégalais mais également chef de l'opposition boo te ñu tolloon ci état de droit bi boo xam ne ñëpp dañ ko nawoon ñu tolloon ci démocratie boo xam ne ñëpp dañ ko nawoon yàlla def le président loolu lañ gis tey jii ñu salfaan ndax la

dañuy nekk ay pays yoo xam ne dañuy tendre vers le te ñu ngi koy defee mooy dañoo boole yëpp lépp li nga xam ne mooy alal askan bi dañ koy tegaat ci def askan moo tax yéen bu ngeen seetloo engouement bi ngeen am ba tey jii mu law biir Sénégal loolu li ngeen comprendre moo tax donc mais li ngeen xam ne rek li ëpp am solo am solo ba tey rek mooy Pastef bi ngeen di wax xam naa di nga dugg ci yooyu moo tax damay damay dama ciy taxanaale rek Pastef bi ñuy wax dañ ko gisee xëy na loolu ñoom c'est pour créer leur propre élément de langage lu ñu mën a waxtaanee ci télé yi waaye du lu mun a atteindre les Pastef yi munul nekk parce que Pastef nekkatul lu ñu bind ci këyit dafa nekk loo xam ne dafa sax si xol mu nekk loo xam ne esprit la boo xam ne day boogee partout ñu ngi fii biir Portugal tey ñu koy dund tey lii lan moo ko mën a tas ñu jàpp ne Pastef tey la gën a. waaw mais xoolal li tey jii bu fekkoon ne dañu am lenn loo xam ne atteindre nañu tey yéen di leen bàyyi mun naa wax quatre heures du matin ñu nelawu leen xaar sama jëmm ju ndaw ji parce que lan du sama rafetaay du dama am fi daraja mais lenn rek la mooy dañoo bokk benn projet boo xam ne koy jëm la sa loolu du ko xeeb ma ne ku ko bëgg a sofantal euh, yaay sonn ce qui est en train de se passer en ce moo tax yéen de vous ngeen teg seen tànk foofu la ñi nekk Portugal aussi tamit maa ngi ñëw ñu jàppale bureau yi ñu taxaw tem parce que c' est ñu ngi ci moment critique moment critique bi mooy Sénégal day dem ci yeneen ñu anam day dem ci yeneen ñu loxo kooku à coup sûr day am ñii jàkkaarloo dañuy dem mais nous nous nous nous am nañ am nañ pas bi am nañ xam-xam tamit leader am. la ci ci perspective yi mais bëgg nga ñëw parce que jamono yé ci magal Touba bi dañu déggoon euh président Ousmane Sonko ko libéré ba ci ko mais ba ko nous ñu ci ay loxo mais xew ci Ni président xool Sonko waxoon bu yàgg mais des fois tamit am nañ engouement bi am nañ pas-pas bi am nañ xam-xam te tamit suñu leader moo dinaa la laaj ci ci perspective yi mais balaa boobu bëgg naa kanam nga ñëw parce que jamono yee ci màggal Touba bi dañu déggoon ne président Ousmane Sonko dinañ ko libéré ba ñëpp di ko yomb laaj mais ba tey ko téye ñu ngi ay loxo mais lan moo xew ci diggante bi. mais des fois sax ñun ñooy may ñu ñu jàkkaarloo li ñuy wax ñun ñoo leen koy may quoi parce que ñoom dañuy génne ay ballon de sànni sànni ko wax ñun ñu def ko débat te ñun yàlla daf ñu dimbali dañoo majoritaire te débat bu ñu yëkkati dafay dafay nekk sujet léegi ñoom moo tax ñoom ñu profité ay tel tel moment ne dañ koy libéré tel moment ñu ne dañ koo rajee ci liste électorale tel moment ñu ne bu ko defee ñun. ñu def ko débat journaliste yi ñu ko def ci revue de presse loolu la président Sonko waxoon dès le début bu ñu leen mu dañu nekk suñu liggéey nañ focus 2024 Pape Alé Niang bi ñu yónni barki dem tam wax na ñu déglu kenn nañu focus moo tax nañu focus amul lenn loo xam ne yéen sax amul lenn loo xam ne bu ñu ko lëlee li xam Sénégal li xam Sénégal lenn loo xam ne moom dañ koy defaraat mooy droit état de droit am au Sénégal mooy démocratie loolu nag mooy sànq bi nga xam ne suñu kanam ñoo ko war a def loolu moom moo waral Sénégal Sénégal nag ndax kon xol moo ngeen ko xam tey Sénégal Sénégalais yi dañoo am lu leen parce que yaakaaruñu woon en deux mille vingt quatre deux mille vingt trois que vraiment ñuy dund situation bi dañoo war a nekk ci yeneen phase ba yéen tey jii seen xel nekk ci. ah fu kon nag ñibbi dem ñibbi dëkk ba liggéeyal dëkk ba jox alors euh, honorable euh, ñu ngi lay remercier di la jaajëfal ci ñëw bi nga ñëw gis man kontaan nañu donc euh, comme sa bariwul da ngaa def transit rek donc benn question xam naa dernière question bi la doon parce que da ngaa war a jël avion donc honorable dañuy dégg souvent ñu naan focus focus dañuy dégg focus focus yéen lan ngeen di xaar focus bi

mooy c'est la massification du parti mooy focus bi jiitu mooy ñun dañoo am parti boo xam ne dañ ko tëgg ci constitution yi ñun suñuy jot ci pouvoir aussi tamit par la voie du jeune dañuy jotee ci pouvoir ñun ñoo ko bind suñu texte ñoo ko bind suñu ci réew mi te loolu pour ñu mën a am nag il faudra que ñun ñu majoritaire pour que ñu majoritaire nag il faudra que vraiment qu'on gagne plus d'élections loolu la ñu demandé jeunesse bi te jeunesse bi vraiment mu ngi ci liggéey liggéey bu am solo parce que bi ñu nekk di def bu am solo la ñu ngi combat yi ñuy mëne ñu koy mëne nu ko mëne

En de vraag maar ook op de financiën. Jullie doen de financiën de financiën doen de financiën. Yang kami ni, dia filolog, dia aussi dans le domaine de l'encouragement. Surtout le fonds, pour, pour le parrainage et pour la réélection du président Ousmane Comme nous, comme nous, nous Est-ce que nous avons lépp stratégie la organisation chaque fois si nous voulons dara ñu fekk ak mais on a toujours une possibilité de se relever parce que du bari sa demoon na Paris gars yi il y a de fonds en même temps ci rassemblement bi donc il y a plusieurs manières parce que diaspora bi a une possibilité c'est facile mais Sénégal parce que chaque stratégie

des euh, stratégies à mettre en place pour que ñëpp ñu bëgg a def parce que projet bi ñu ko tënk yëpp ci xam-xam lañ ko donc pour am ay jaar-jaar pour vraiment li parce que aussi tamit bon yaatu na dafa yaatu ginnaaw quoi dafa njaboot daal voilà dafa njaboot waaw yàlla dafa ñu dimbali ci honorable ñu lay remercier donc euh, bëggoon nañu gën a yaatal mais état bi comme dafa xam ne danaa war a jël avion balaa na si bàyyi bëggoon nañu voilà di lancer un appel rek les patriotes de la France pour que vraiment ñu ñëw ci euh, meeting bi nga xam ne waa Pastef waa organisé nañ ko ñun ci lañ jëm nii donc ñu ngi ciy woo waa France donc même waa Lisbonne sax bu ñu mënee ñëw àndal ñu àndal ñu. Thanks to the trams. The trams, inshallah. The trams, inshallah. Okay, that's going on. Merci Merci.